Euh, tey ñu ngi fii ci Ourossogui waa parti biir Matam ñu ngi fii tey ci Ourossogui si benn VAD boo xam ne moom la amal tey fii Ourossogui. Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne rek yéen a ngi ñuy teew lu saa su nekk euh, ci biir réew mi ak bitim réew di leen di wax jaajëf resté clé câble sur ma chaîne YouTube. di félicité aussi mbokk yi nga xam ne ñoom laa àndal si liggéey bi yëpp équipe bi yëpp. franchement donc li suñu candidat waxoon rek euh, campagne bi day continuer dañuy wéyal suñu campagne. comme niñ koy defee rek niki tey nag ñu daal di dikkaat àndaat ak yéen euh, ci euh, VAD bu nga xam ne rek visite à domicile bu doon am foofule ca diwaanu maatam mën nañu nag ca wurus gi ñi nga xam ne rek ñoom di parti pur parti de l'unité ca diwaanu wurus gi mën nañu nag topp rek li nga xam ne moom mooy. Euh, ñii di euh, doomi aadama yi nga xam ne rek peut-être euh, daal di nañuy engagé wu lool rawatina nag ci wàllu politique xamle leen nag ki nga xam ne moom moo di seen candidat bi di Aline Mamadou Dia ak programme am bi nga xam ne rek teg nañ ko. def sax élection te dañ gagné incha allah rabbi suñu candidat moom ku ko gis ak engagement am partout département yi nekk si réew mi yëpp gars ngi si terrain bi donc la campagne continue incha allah. mën nañ nit ak naataange nekk lu boy lool ci noppi doomi aadama yi la jamono bi ñu toll nii euh, tax nag ñoom ñu ne rek kenn du dem ñu des préparation élection 2024 yi nga xam ne ci la ñu nekk waroon ko amal nag ci la 25 février bi wante kat kii di président de la république jëloon dogal pour nag ajandi li nga xam ne rek moom moo di élection yi euh, man nañ ne nag taxul benn yoon ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askanu sunu gaal teggi seen tànk ba tax ñii di waa conseil constitutionnel daal di jote ne daal dinañ koy tege ne tege ndaxte kat àq ak yelleefu doomu aadama yi dañ ko war a respecté te tamit dañ ko war a sàmm niki tey waraloon naka ñu daal di continuer rek li nga xam ne moom mooy visite à domicile yi foofu la ca diwaanu Ourossogui nekkat ay élection dafa war a am ci réew mi di Sénégal tax ñii di waa PUR moom bàyyiluñ dara kii di président Macky